arbitre da ngay waaj a soufflé si ñaari mbëri oxo ak doomu Pikine Ndiaga Ndiaye. Dégé Ndiaye góor gu gaynde. Ndiaga Ndiaye ay waay. ndeysaan ndeysaan dégé. ak doomu ak doomu Pikine doomu Pikine moo njool bi. moo doomu Pikine. non doomu ay sama nday. ku rek daw siif ko. waaye gan gi soxor na de. waa li la sa waaye ngay riposté de moytul de moytul mu baraake la waaw. boobu neex na ma de boo ko dolliwaatee waaw waaw boobu neex na ma de waaw waaw foofa la de waaw waaw léegi mu bàyyi foofa la foofa la dal waaw waaw dugal na ñaari épercule bu baax sa ñam na non ah doom Pikine moo ñu woon ginnaaw non daanaan la tey indi na mbooloo doom Pikine nag fi mu dugg baaxul de parce que daa fàqul njool bu jàppee ay coup sonal ko day fàq bu fàqee mu rës waaw ah Ndege Ndiaye mii la ni mu duggee baaxul donc Pikine da kaa ndengeñ ba pare di ko ron ay effet waaw parce que mu téye da kaa ndengeñ ba pare di ko ron ay coup te baaxul si bëre bi waaw kii gisoon noppi ni mel boo xoolee noppi xam ne am na quarante bëre bëre du réer oh pas douze ba ku ko xamul dégg nga ko mais neex na de nee nañu rënkum waaw waaw boobu rek la de doom pikin doom pikin a ngi ron ay épercil doom pikin a ngi ay épercil eh, waaw def na rotation fàq ko def na rotation fàq ko mu bañ mais kii njool la boo koy fàq doo ko ko téléphoné ma ngi koy xar ma ngi koy da eh, eh, kii daa diis de waaw ah, waaw xar da ngay xëcc ba sa loxo ñëw waaw waaw ba mu ñëw nga doog a départ delloo ko fa mu jóge woon waaw loo poli na ko delloo non daanaan la espère la si affaire yi waaw waaw Fils de Fodé daana def lii moo tax waa daa xëcc rek mu ne ko oh booy kenn du xare noonu moo tax bërekat bu nekkee si ginnaaw yaram waay tàng doole yemul ndeysaan booy negañante nañ bëre bi neex na loolu ba jaaxal ma doom pikin ak dege man dege mënu ma kaa jàpp tey laa mos a dégg dege waa dege doom pikin ronu na doom pikin féete na ko si suuf da koy otalaat saako yi la jege doom pikin a gën a daan moo gën a daan dege waay waay dege degel kii boo ko degewul da lay dege de bala mu laa dege dege ko dege ngi wër fu mu jàpp doom pikin a ngi doom pikin léegi mu ronaat épercule mais doom pikin daa moo gën a parce que moom une deux mu loxo dóor te looloo jeexal combat non combat bi dañ ko séddoo ñoom ñaar kenn ku ne da nga am waaw. Laasana moo ko andi. waaw. ndeysaan la grand course grand. Laasana ndaanaan la bu bàkkoo rek nga xam ne ndaanaan bàkku na. Oh. moo mën booy si bàkku. maa la wax loolu. Laasana boo ko musaana wër ndooma doo ko daan. maa la kon ku indi war naa mën a bëree. moo sama kàddu gi si li boogaa borom tànk yu dëng ya dëkkoon Pikine aka na xaree woon a bëreel mbokam dam lamin koor ndaysaan boogaa waaw non man dama yàgg waaw xalifa ngiraan oho kooku bu la musaana dóor sa protestant da lay romb ndax ay Touba Dakar da daan dóor da daan dóor ba maa la wax loolu ah yow doom yàgg nga seetaan de eh. ah yow boo ci waay waay ah wallaay Bathie Arass daan ko ba toog si ndigli a jafe jamono yooyu Bathie ak a ës waa Fass xam nañ koy Bathie. saa nga ñor ci la bëri woon moo bëri woon. waaw moo bëri woon neuvième combat bi. waaw moo bëri woon la. wooxoo ak Issa Pouye Pikine gu njëkk gaa ngoog ak Coly Faye ak Cheikh Ngiraan lamb la mooy waxtaan ak yéen comme booy yu bëree guñ ñu fàttali leen démb ndax démb si la bokk bu démb neexee rek nu ñu wax tey mais bu démb naqari woon kenn di wax démb kon tey la ñuy wax mais démb ak tey lan moo gën a neex. non démb neex démb neex na. non booy yi mënuñoo dab démb. non démb neex xam nga. démb laa ma ko doon gis. waaw aada cosaan waaw waaye tey xam lu ko naqaril waaw li mooy CNG bi moo ko naqaril làmb ji lan rey CNG dafa rey sarm làmb billaahi li mu génn na de li mu génn ci moo bëri oh, ay waay dege dege yëngal na stade bi mais boo doom pigi na ngay la doom pigi ndaa bëgg a dege koy xëcc doom Pikine Dege ay waay doom Pikine Dege ngay rokos Dege da ngay rokos fa jëm dafa demi sélectionné waaye bëtal kii jàll gaañ fa jëm daan na ko Dege daan na fooram la fooram la mboot na ko nañ naani meew mboot moomu mooy nañ naani meew mboot moomu mooy nañ naani meew mais mais lamba loog. waaw est-ce que Ada ak Zarko mérite nañu bëri pare ñu leen di ak un an boole ko dagg seen xaalis. waaye looloo gën a métti dinañ si wax ñu ngi ñëw si ñoom. du yoon loolu du rafetul ñaari talaar yooyu boo leen dàqee at bu ñëwaatee est-ce que dinañ amaat lañ amoon. déedéet loolu nag sen day yàq waaye defarul moom intérêt am rek lay xool xoolal saisi boobu ba léegi kenn defaru ko kon loo leen di daggee anamu ba pare téye seen million. lan moo la jooyloo. tey su ma daanoon du baax. waaw bëre. waa Cambérène dañu war a jàppale. seen doom dañu mën bëre. monsieur le maire duñ pare ngir yàlla dimbali seen mbër. monsieur le maire ngir yàlla yow la ñu am. ni yeneen koñ. ñun ñoo yow dañu la war a tiiroo yooyu duñ pare. maa ngi sant bu baax. dege dege ñëw si li nga bëree parce que dege booy bi da ngaa tante mboot moo xamante ne nañ naani meew la mboot mi tudd. barki Seydina Mohamed ba pare defaat loolu. daan ko si motu motu bi mu ñëwee école. waaw dama nekk nii gis rëy. dama ñëw fii toog kat naa bëréew ma. ma ñëw juum. ba kooku war moo taxaw ak moom dama juumoon si lamb. waaw ki xam nga lu leer. mais mais lan moo tax mu ku daan ku daan ay ay franc. ah. ay moo jamu yoof. waaw du borom bu booy yi. ardo yàlla na am ndam. waaw dama ardo dimanche Ardo mooy bâtiment bi seen fay barki Seydina li moom appel bi appel bi yoon bi ku ñëw na. appel bi ku ñëw waxal fëgg. mooy fëgg kii xam na ko. lamb ji nekkul lamb ji laa yoon. Ah,